jërë ngeen jëf ndem si yàlla Binta Camara ka ko rey ngay bëgg a feeñ l'observateur nañu bu feeñul sax bu noppi ubbil yéenekaay bi benn waay la ñu naan Alioune Badara Fall toll ci fanweeri at ak ñett moom la ñu wax ne moo faat xale bu jigéen bii di Binta Camara ca Tambacounda moom Alioune Badara Fall ku jege woon lool njabootug ñoom Binta Camara gi la rawatina bàyyi Binta Camara di Malal Camara li ko feeñal mooy téléphone portable bu Binta Camara bi ñu doon wër moom la ñu fekk ci moom Alioune Badara Fall bi ko waa police ootale moom dem këram defi fa perquisition ba duggee ci ab néegam ca la ñu gis téléphone Binta Camara bi ci suufu madlaam yéenekaay bi nañu fekk nañu fa it caleçon bu tax deret te bi ko enquête kat yi yóbboo di ko enquête nangu na ci enquête ba ne moo rey Binta Camara ba wax leen sax ni mu ko reyee l'observateur nañu te nag moom Alioune Badara Fall bi mu defee li def bu nuppi dafa ñëw kër ñoom Binta Camara ne dafay bokk njaboot gi tiis wi leen dara ak naqar wi daal ci seen kaw fa ko pëlis fekk ne ko ñib jàpp Camara faatu ci am na lu yes ci enquête bi am na benn waay bu jege woon lool Malal Camara mi jur Binta Camara nee nañu waajoojee moo rey Binta El Hadji Malick Diop di écho gardien biñ ci njëkkoon a tuumal tegoon ko loxo woon ko sa téye woon ko fa cib garde à vue journal bi nee nañu mujj nañ ko bàyyi Vox Populi dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk As Malick Diop mi ñu tuumaaloon ci yëf yi joxar bi woon ko mu tuuma téye woon ko ca yoon bàyyi nañu ko mu dem beneen waay bu ñu naan Pape Alioune moom la ñu jàpp ab militant APR la woon jege woon lool it directeur général bu agence développement local maanaam Malal Camara mi jur Binta Camara moom Alioune Fall Vox Populi nañu li ko feeñal mooy téléphone Binta Camara bi la ñu tracé di ko topp ba mu dugal leen ca néegub Alioune Fall libération nañu te nag moom Pape Alioune Fall ba ñu koy jàpp ñoo ko jàppee kër ñoom Binta Camara ñoo ko fekk mu doon naxaka dëfal ña ñëwoon doon jaale si journal bi boole ceekit di ñu leeralal ni waa DPTS di division technique et scientifique def ba jàpp ko anki dina kay nañu ci ndimbalal waa Sonatel ak ndimbalal gardien bi moo tax ñu jàpp ko Pape ñu ne moo rey Binta Camara nañu moo ne woon bara droit bu bàyyi bint kamara moo ko doon defal léppam xale bu jigéen bi di Binta Camara réew mi quotidien xëy na di ñu xamal ne ki ko rey da ko bëggoon a violé waaye mujj ko violé ne certificat genre de bi wane na ne kenn yeggul ci kawam les échos nañu da koo xeex ba jeex ngir bañ a joxe boppam moo waral ba ni mu faatoo it dara jugul ci moom soleil national nañu waa ji ñu ne moo ko rey boo xoolee yaram wi ak gajji-gajji yu bari yi ca nekk mooy wane ne Binta Camara dafa bañ ba sonn yéenekaay bi nañu waa police scientifique wane nañu ci ak ñaw gu mat sëkk waaye procureur bu Tambacounda liggéey ci lu am solo suur suwaa nañu ci jamono ji ñuy teg loxo ki ñu ne moo faat Binta Camara ci la ñu gisee benn jàngalekat bu faatu ca Elenkin Vox Populi nañu am na it benn xale bu góor bu oto mburu fiir mu faatu ca Bambey ak benn xale bu jigéen bu ab camion jaar ci kawam mu faatu fii ci Ndakaaru Rewmi Quotidien nañu dolli leen ci ouvrier bi faatu ca kër Njaayloo ak benn paa bu des ci ak lakk gu amoon ca Yaraax la Sénégal nañu lakk gi am ci Yaraax ba paa boobee faatu ci yëf ya nga xewee ca kër député Fatou Diouf njaageen di ca kër ñoom président Lamine Diaguet yéenekaay yi xëy nañu fa bokk na ci la tribune mi ñu xamal ne lu soxol coowal corruption yi ñu doon wax ca I2AF tax na Lamine Diack ak doom ja Pape Massata Diack bu ñu moytuwul ci ab layo maanaam ab procès ci la ñu jëm les économies bu ñu ca yeggee président Lamine Diack mbirum corruption passive ak active la ko nar a toppee moom président Lamine Diack ay kàddoom ci xët mu njëkkuleese ko muy xamle ne daanaka ñetti at ak genn wàll ngi muy dund li muy dund moom waajal na boppam bu nuppi dara mënu koo yëngal ci Sénégal mais yow sawaay yow